ndax jëpp jëf ju ñu jëf ca sëñ bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja sëñ bee ko raw gon ko rafet la mu jëf looloo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju rëy fa barab perama jàllale jërëjëf Serigne Touba miim réew Bamba ka moom Wow wow wow wow, bu ko wow, wow, wow neex waaw wow, wow, bu wow wow, wow, mu neex waaw wow wow, bu ko wow, wow, mu neex waaw wow, wow, bu ko wow, wow, mu wow, ndax wow, wow, wow, wow, ca sëñ bi tax ko jëf jëf-jëf ja sëñ bee ko raw la mu jëf looloo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju fa barab bu mag ba nekk fa Tuubaa